asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ça su koy defee ngeen ànd ak ñun seen dundin seen nekkin choisir la chaîne leader chaîne askan wi Dakar People saa su ne ñu ànd ak yéen di siiwal di feeñal ak wéyle borom xam-xam fépp fu mun a nekk ci biir réew mi mais nag amal nañ contentement ak mbégte beneen yoon dalal ku ngeen xam. seen xarit seen soppe sëriñ Xaadim Fall alxuraan di kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi sëriñ Xaadim Fall alxuraan nuyu nañ la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu وافتح لنا كل باب كنت فاتحا ولسالهين من خيرات يا الله ربنا آتنا في دنيا rek Euh, fas yéene yaatal suñu xam-xam di ñuy jullitu yàlla yépp di seedeel lépp loo xam ne dañu koy wax ñu ngi koy seedal alquranul karim lépp lu ñu fi wax tamit ñu ngi commencé ci alquranul karim yem ci alquranul karim ginnaaw bu ñu paree ci loolu ñu ngi nuyu suñu kilifa euh, sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaanal jullit yi nekk ci prison yi suñu borom yëkkati leen di ñaanal ñi tëdd ci lalu hôpitaux yi suñu borom yëkkati leen nekk ci prison yi suñu borom génne leen ci waaw di wax nag ni émission bi képp koo xam ne dégg nga ko na xam ne mooy émission fajub aajo li ñu Serigne Touba defal moom la sant moo waral maanaam émission bi ñu def ko émission boo xam ni dañ ci sant Serigne Touba ci weer wi nga xam ne mooy weer wi nga xam ne dafa woote ni ñëw leen sant le yàlla moo tax ñu fas yéene def émission boo xam ni sant Serigne Touba la képp koo xam ne tamit am nga ci aajo dinañ ko ci faj ci kàttanu yàlla incha allahu taala. ñu ngi lay fay Serigne Khadim Fall alxuraan tey nag ñu seet seeti la beneen yoon am ak yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waaye tamit waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne ni sa su ne bu nekkee gàllankoor si jaamu yàlla yi seen xel du jug mukk si fajum aajo jëmm ju mel ni Serigne Khadim Fall alxuraan. pour saafara Serigne Khadim tey suñu question bu njëkk rek bëggoon naa ñu amal ko ci wàllu ubbeeku fat ko te jamono yi ñu nekk Serigne Khadim nekk na jamono yu xaw a doy waar jamono jamono nekk jamono am-am la jamono koom-koom la yaakaar naa ni njëriñal ubbeeku nekk na lu am solo Serigne Khadim lan moo dox sa diggante bi rek ubbeeku. waaw xam nga ubbeeku bu ñu koy wax incha allahu ta'ala. maanaam dañuy wax yoon yi nga xam ne ndax suñu borom bu sàkkee àdduna ni ko sàkkee noonu la sàkkee loo xam ne yoon bu nekk rek maanaam ak la jëm parce que ku jug jëm Ndakaaru xaw nga jaar ci yoon wa waaye bu fekkee wàllu ubbeeku la yoon wa ñi koy liggéeyee ci rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xeyrul fatihin wante dafay jaxasoo ak fatiha maanaam comme cere lay doon loo xam ni dafay ànd ak ñeex maanaam day jaxasoo ñuy dox ci wàllu ñaan nag comme li may wax rek maanaam xam-xam moom dañu ko am te laa biir ci képp koo xam ne tamit suñu borom dogal na nga yittewoo jàng xam-xam tamit boo ñu woowee ci suñuy numéro dina la ci laabire bu baax a baax wàllu ubbeeku rabbana iftah bu ànd ak fatiha dana ciy def xasum lawbe ak kopp ak yeneen ak mbir yi mi àndal loolu duma ko wax ci émission bi waaye foofu laa koy tënk sëriñ bi macha allah Serigne Khadim Fall alxuraan leer li am na solo trop yaakaar naa loolu moo nekkoon tontu bi ci mbirum ubbeeku bu ñu bari ci loolu Serigne Khadim bëgg naa tuuti ci wàllu rab ci mbiram yi ku nekk wax jëmale ci mbiru rab rawatina Serigne si Serigne Khadim mën a wax ci tënk ci wàllu rab. waaw jërëjëf <clears throat> comme ni ñu ko waxee rek wàllum rab moom. maanaam rab doomu aadama yëpp ko am waaw waaye dafa am ñoo xam ni rab daf leen di yàqal ba maanaam euh, lépp lu ñu dugg dafay am jafe-jafe lu ñu leen dikk lu ñu yaakaar dafay am jafe-jafe loolu rab moo koy def yoon wi nga xam ni nag moo ca gën a gaaw ci képp koo xam ne maanaam yaa ngi yor wàllu rab yoon wi ci gën a gaaw mi ngi doon fatiha bu ànd ak wa in yakaadu lazina kafaru la yasbiqunaka bi absaarihim lamma sami'u zikra wa yaquluuna innahu la majnuun wa maa huwa illaa zikrun lil aalamiin waaw ñett ñett lay doon waaye dañ ciy def reeni ngeer ak xasum xay ndax yàlla bu wàccee alxuraan alxuraan leetar la rek waaw leetar la rek muy waxi suñu borom mooy mi ngi mel ni ngay soxla nit di ko bind leetar waaye bu ne maanaam mi day jariñ tamit comme ni mu koy waxee naan sama lépp mi ngi ci arxuraan naa farat naa fi kitaab yi min sama lépp njëriñ la ci arxuraan bu ko waxee tamit maanaam dafa am lu nekk rek ak lu muy àndal waaw moo tax wàllum rab da fexe ba am wenn yakkaadu nga ànd ak fatiha nga def ci xasum xay ak reeni ngeer ak xorom am yenen mbir yoo ci boole incha allahu taala koo ko defal ci wàllu rab suñ borom dina ko dimbali rab yooyu maanaam suñ borom calme ko bu baax a baax incha allahu macha allah Serigne Khadim Fall alxuraan leeral yi am na solo trop macha allah daanaka bu ci loolu Serigne bi bëgg naa ñu ñëw ci wàllu tukki parce que jafe-jafe yi jaamu yàlla di jànkonteel ci wàllu tukki bëri na lool lool lool te képp ku xam Serigne Khadim Fall alxuraan xam ne suñu borom defal na ko loxo bu gudd may na ko ay tegtal yu bare bare bare ci wàllum tukki. waaw sëriñ bi wàllum tukki moom li ci gën a gaaw mooy la xalqu samaawaati ak ardi akbaru min xalqi naasi walakin aksara naasi laa yaxlamuun lépp rek mi ngi dëppoo ci alxuraan waaye képp koo xam ne suñu waram dafa dogal mu bëgg a tukki ak képp koo xam ne sax dafay lijjanti wàllum xaalis maanaam mooy waral nit euh, yorel euh, bor maanaam nga koy fayeeku mu dëgër ak maanaam maanaam nit la dara nga koy xaar mu yàgg képp ku wut la xalqu samaawaati wal ardi akbaru min xalqi naasi ba mu jeex ba aay bi jeex maanaam nga boole ko ndoxum géej maanaam ak ndoxum teen ak ndoxum taw nga sangoo ko juróom ñaari fan incha allahu taala lépp looy sàkku ci wàllum xaalis suñu borom dina dogal mu bari say loxo incha allahu taala macha allah Serigne Khadim leer li am na solo trop bu ñu paree ci mbirum tukki tamit bëgg naa tuuti ñu ñëw ci ñi nga xam ne dañu bëgg jëkkër wala jabar nekk li nga xam ne day doon jafe-jafe gàllankoor si ñoom Serigne Khadim Fall loolu lan moo ciy soxna soo xam ne ndeysaan euh, dafay tol foo xam ne maanaam góor ñëpp dañu koy bëgg waaye du mën a fexe ba sëy loolu nag li nga xam ne moo koy waral mooy suñu borom dafay dogal ni danga koo war a bindal aaya bu ñuy wax la wala tamudanna aynayka ilaa ma mataxna bi aswajan ba mu jeex boo defee da ngay fexe ba am kawaru góor nga def ko ca téere ba maanaam boo ko jëlee def ko ci morso takkal ko ko ci morso bu weex balaa morso bee tilim incha allahu taala mhm. suñu borom dina dogal maanaam mu am uh, jëkkër ju baax ju ko mën a yor incha allah taala ki xam ni suñu borom dafa dogal mu bëgg tamit jëkkër uh, suñu borom dog jab waaw mu bëgg soxna te mënu ko am fu mu dem ñu dàqu ko tamit mhm. da ngay fexe ba bindal ko walaata mu dana moom itam bu ko defee kawaru jigéen la ciy def mm-hmm. maanaam ku bu dee ko mu takk ko incha allahu taala so jigéen ñi dinañ ko dërmal bu soobee subhaanahu wa taala macha allah Serigne Khadim Fall leer li am na solo trop bu paree ci loolu Serigne bi des fois dañuy faral di dégg ñu diw jinne moo ko jàpp diw jinne ko dugg diw jinne ko lii Serigne bi est que loolu lu wér la ku jinne jàpp am na tamit boo demee ba loolu bu dee wér ku ku jàpp lan ana yan mooy tegtal yi ana lan mooy jaaruwaay yi pour suñu borom ko. xam nga jinne dafa ndax yàlla moo koy wax ci alxuraan xul uhiya ilayya parce que yàlla bi muy daa bind ay rab bind malaaka bind jinne bind doomu aadama yi ñuy jaxasoo maanaam ki nga xam dafa dogal ni jinne daf koo jàpp suñu borom dafay dogal ni kooku day toog ba mu yàgg. muy euh, faral di maanaam di naan faru rab loolu jinne da ciy rax mooy nga toog ba mu yàgg suñ borom dogal ngay toog di sëy sëy sa bopp gént maanaam di sëy sa bopp wala nga jékki-jékki toog ba mu yàgg sa yaram di tàng surtout waxtu ngoon wala nga toog ba mu yàgg maanaam say tànk di faral di tàng lool ba doo ko mën a teg ci suuf wala ngay toog ba mu yàgg ngay jékki-jékki mel ni ku génn àdduna maanaam loolu li koy waral mooy jinne moo koy waral moo lay dugg waaye képp ko nga xam ne suñu borom dogal na euh, mandarga yooyu ñu fi wax maanaam mu koy feeñoo bay boo nga teel caa jóg te ni ñu ciy jógee li koy saafara sooratul jinni qul uhiya ilayya anna ustamaa nafa mina jinni fa xaalu inna samina ni ko yàlla waxee boo jëlee saar woowu am loo ko booleel ak daqaar ndax Dakar ci la dina dëkk. Mhm. boo ko boolee rek nga jàmbal ko ko incha allahu taala bu ko sangoo rek suñu borom mën naa dogal lu newoon ci moom day dañ incha allahu taala. Mhm. macha allah Serigne Khadim Fall alxuraan leer li am na solo trop macha allah Serigne bi bu ñu ci loolu bëgg naa tuuti ñu ñëwoon ma ci mbiram kaaraange ndaxte Serigne bi umpalewul ni jamono yi ñu nekk nekk na jamono ju doy jafe-jafe yi bëri na donc loolu bu amee yaakaar na taxaw seetlu am jëme jëmee ko ci mbiram kaaraange nekk na lu am solo sëñ Xaadim Fall lan nga ñu mën wax ci mbiram kaaraange tey jii sëñ Xaadim Fall yan bunt la suñu borom defal jagle ci wàllu kaaraange. waaw kaaraange moom sëriñ bi dafa bari ay façon waxte am nañ ci ndomba boo xam ni ah, day dox ci sóoratu mulkook yaasin loolu ak ayatul kursi yi te kaaraange mënta weesu loolu waaye kaaraange gi nga xam ni maanaam euh, jigéen def koy mën a am góor mañ ko mën koo am mooy kaaraange gi nga xam ni maanaam mooy la gën a wér ndax bu dee bi jigéen du takk ndomba pour góor rek la waaye nag jigéen bu amee ndomba bi incha allahu taala du ko du ko du ko du ko yittewoo góor daal mooy yittewoo ndomba bi ki nga xam ne nag jigéen la te bëgg kaaraange mucc ci wàllu bët yi ak wàllu cat ak wàllu liggéey yi doomu aadama yi def euh, la muy def mooy dañ koy bindal ayatu kursi ab lim laxat jaakum ab lim waaw bo am lu ñu ko boole jox ko ko incha allahu taala bu ko sangoo ci kàttanu yàlla Sénégal yëpp jëloon ay liggéey di ko teg ci kawam suñu borom dina ko muccal ca loola bu soobee yàlla. Mhm. macha allah Serigne Khadim Fall leer li am na solo trop. mais sëriñ bi bu paree ci loolu bëgg naa tuuti ñëw ci benn pàcc loo xam ne souvent damay faral di ko dégg mu nekk lënt-lënt lool ci sama xel mooy damay faral di dégg ñu naan diw dañ ko takk xala loolu est-ce que lu wér la. waaw xala am na ndax ñaare boo xoolee li tax loolu wér na maanaam borom ñaari jabar yi ci bari te na daree na dal mm-hmm. ndax suñ borom dafay dogal ni da am ñaari soxla. Mm-hmm. waaw ah, waaye képp ko nga xam ni maanaam suñu borom dafa dogal ni dalaa dal. du rab waaw du dal. maanaam képp koo xam ni daf laa dal. Mhm. li ciy pexe mooy. maanaam da nga koy bindal aayatul kursi yu. bu defee nga jël nenob ginaar ñorul. boole ko garab gi am loo ko booleel nga jox ko mu naan incha allahu taala képp koo xam ne dafa dal suñu borom mën naa dogal boo ko defee incha allahu taala suñu borom dina la delloo war góor comme na nga ko doonee woon. ku si bëgg a mucc nag xam ne dalagul nga bëgg ci mucc. waaw képp koo xam ne tamit uh, daf laa dalagul nga bëgg cee mucc da ngay fexe ba wut kaaraange gii nga xam ne moom laa wax sànq. Mhm. muy ndomba bi wala suwaat nga am ayatu kursi yu bi ànd ak laxat jaakum loolu moom bu la ko joxee ba am lu la ci booleel nga def ko ci kàttanu yàlla lépp lu doomu aadama yi def fexe mu mucc nga ci incha allahu taala. sëriñ bi ku ñu nag. waaw ki ñu njabar tamit maanaam ci fànn boobu rek ca lay dox ndax maanaam liggéey. ak njibar ak maanaam cat mhm. ak làmmiñ ak bët yëpp ñoo bokk lu ñuy def ci doomu aadama muy gàllankoor rek waaw mhm. ah, te képp ko nga xam ne bañ bañ nga lu la gàllankoor ci àdduna dangay ngay ba am kaaraange gu wóor kaaraange kenn du ko fowee ndax loo xam ni da lay musal ci bët musal da ci musiba yi kaaraange boo ko amoon sax mën ngaa duggu ci oto finne ñëpp accident yàlla na yéex ñëpp accident nga ne ci oto ba suñu borom dogal nga mucc mm-hmm. ñaare li koy waral ñaare nit ku bàyyiwul boppam am kaaraange mooy waral lu mel noonu mm-hmm. waaw te maanaam nit ñi dañ ko sàggane te lu waaye war a am war a am kaaraange moo moo solo mm-hmm. waaw ndax lu lay musal la incha allah macha allah Serigne Khadim Fall leer li am na solo trop macha allah waxtaan bi am na solo trop mais Serigne Khadim mënu mën a seet si te du ma ñëw si yóbbante bi nga xam ne mbokki internet yi chaque fois ñu ngi ma koy yónnee mooy sa coowal jaaro bi coowal jaaro Serigne Khadim Fall bi Serigne Khadim Fall jaaro sa jaaro boobu noonu lan la lamboo ba tey jii képp biir ak biti réew foo tourné ñu la koy dàkkantalee di ma di ma ci topp di naan yóbbal yóbbal ndëj bi lañ bëgg nga yeggalal ñu Serigne Khadim Fall mu indi si ay leeral parce que mun naa nee jaaro ji ñi ko joto jëfandikoo wax nañ ci ay kéemtaan yu doy waar waaw jaaro yi moom wax dëgg yàlla <laughs> kune xam na ni njariñ la gu ànd ak lor ndax bu fekkee mbir moom danga koy takk suñ borom dogal mu lay musal ci lu bon di la di lu baax loolu njariñ la gu àndul ak lor képp ko nga xam ni nag am nga ko mënoo bokk ki nga xam ni maanaam nekku ci sa loxo ndax kaaraange la gu ànd ak muslaay gu ànd ak ubbeeku te boo ko takkee lépp loo jug di ko lijjanti suñ borom mën na koo sottal incha allahu taala te képp ku lay liggéey it maanaam liggéey bi du daal sa kaw te li nit ñi gën a ragal muy wàllum cat ku ko takk mm-hmm. Mm-hmm. maanaam suñ borom dina la ci muccal ndax bët du la dugg làmmiñ du la dugg te loolu mooy cat képp koo xam ne tamit suñ borom dogal na nga takk ko am looy lijjanti ji heure boo jógee di ko lijjanti suñ borom mën na koo jàppandal incha allahu taala waaw li ñu ci mën a wax daal mooy njariñ la lu àndut ak lor Mm-hmm. mënuñoo wax li ci nekk waaye képp ku ko am ba takk ko di nga xam ni maanaam takk nga loo xam ni maanaam euh, nekk na say yaram yaa ngi koy yëg daawoo ko yëg ci sa yaram waaw. macha allah sëriñ Xaadim Fall alxuraan waxtaan bi am na solo trop lool lool lool mais mun naa ne sax dañ la fekk ci yoon waxtu tënk na la lool lool lool lool xam naa du ñu def lu lu ñëw bàyyi la tàggatoo ak suñu mbokki internet yi sëriñ Xaadim Fall alxuraan lan ngay waaw li ñuy tàggatoo mooy di sant Serigne Touba di sant Serigne Touba bu wér-wér moom ni ñu def nii ñu mel waaw ndax ku dul moom mënuñoo def nii ñu mel ginnaaw bu loolu jàllee tamit ñuy sant mbokki jullit yi ak mbokku taalibe yi ñu safoo waaw dañu déglu fu ñu toll te bu ñu amee soxla tamit ñu koy yëg ci lu mu a nekk ñu koy yëg. Euh, bu loolu jàllee tamit may woo bépp jullit waaw di wax ni képp koo xam ni suñu borom dogal na nga dégg euh, vidéo bi yàlla na suñu borom dogal muy doon sa fajuk aajo te bépp soxla boo am nañu ko yëg ndax lii ñuy def ci weeru safar la ñu nekk te dañu defal Sëriñ Tuubaa rek lañu koy defal maanaam duñ ci sonal kenn képp ko am aajo daal li ñu ca soxla woo mooy ñu yëg aajo ja rek incha allahu taala ndax li ñu sëriñ Touba defal ci weer yi lañu ko defalee moo tax duñ ci duñ sonal kenn ci dara nan fexe ba xam ajo jaam ñi di koy faj incha allahu taala laneen la ca topp mooy di nuyu sama mbokk yi nekk bitim réew ñëpp rek ku lim di nuyu sama mbokk yi nekk ndakaaru yëpp waaw di ñaanal ñëpp jàmm rek di wax ni képp ku dégg woote bii daal yàlla na doon sa faju aajo rek waaw waftax lanaa kulla baabin kunta faatixahu li saalihiina minal xayraati irlahu barke borom Tuuba